mais lii erreur la woon bu am rek loolu la ma seedeel ulli sama rakk la même bu dee benn lu baax sekk nañ ko maag moom loolu la wax mu laay wax ci man lu rafet le sama rakk la sama rakk la lu ñaaw xaju fi man tamit foog ma laay waxal ko tamit ne ko sama mag la histoire moo amoon juboo am na jaam am na ku nekk na liggéey liggéeyam ku nekk na liggéey liggéeyam Adamo sant naa la gërëm naa la parce que yéen yéen ma dooleel yéen waa live bi yéen a ma dooleel ci mel ñoom Adamo wëli courage liggéeyal soo euh, courage liggéeyal courage liggéeyal lañ may lañ ma doon wax mosoo leen maa wax lu ñaaw ci kenn Adamo ba ñu waxee dafa ne maam sama xarit la borom xol bu rafet la. ñun ñëpp. waaw Pikine lañ def. on est ah. ensemble on est ensemble. daal ñëpp teg tegee yëpp Pikine ngeen dëkk. ñu leen di sant di leen gërëm ah. daal yaay nii. tapotele live bi 78 552 41 55.